asalaamualeykum mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di leen remercier bu baax a baax ci seen fidélité ak seen engagement ci mission bi nga xam ne moom lañuy ñuy jéema doxal ci chaîne bi ci combat bi ñuy doxal nga xam ne combat de principe la waaye du combat de personne euh, mboolem ñi ciy jàpp ñu ngi leen di sant xam naa au début bi ñuy sooga taxawal chaîne bi ci at yu yàgg yooya diggante 2012 ak 13 daanaka sentiment yi ñu gënoon animé rekk mooy dencukaayu wax fu ñu taataane wax ju am njariñ rekk ñu xool nu ñu ko dencee moo tax ngeen gis ñu njëkk ci dugal waxtaanu Souleymane Bachir Diagne yàlla xam na ne booba li ñu ci yóbbe woon rekk mooy denc waxam yu am njariñ yooyu ba buñ ko soxlawaatee man koo digluwaat ñu dema dem ba di ci dugal suñu waxu bopp ak li ñuy lompañ ci xam-xam ak li ñuy lompañ ci xel mu sell ak li ñuy lompañ ci ak njub yépp rek tabaarakallahu ñuy jéemantu ndax ñaare inspiration dafay gane nit inspiration bi la gane nag soo gaawul rek wut foo denc mën na laa réer loolu soo ko laajee ñi nga xam ne ay waykat lañ ay poète lañ léeg-léeg am lu la gane si ci ay abyaat euh, même su fekkoon ngay nelaw sax gaawal ne bëreet yeewu wut bindukaay bi ak fëy nga gaaw ko bind waaye soo nee xaar ba suba rek mën naa am bu suba jotee inspiration ba du fa nekkati ba ci ñi nga xam ne ay artiste lañ noonu la ñuy def inspiration bu leen dikkal dañu gaaw bind ko sinon rek da leen di rëcc ba ci artiste plasticien yi nga xam ne ñaare dañuy yëngu ci wàllu dessin bu leen inspiration dikkalee ñaare dañuy gaaw jóg rek interpréter ko ci benn tableau d'art wala yu ni mel sinon rek daf leen di rëcc moo tax léeg-léeg am na ñuy denc ci bind bi ak feuille waaye am ñuy denc ci ay enregistrement ndax kenn ku ne ak fa yàlla may am ñoo xam ne expression écrite la leen yàlla gën a may seen xalaat yépp liñ ciy mën a jàllale ci bind duñ ko mën a jàllale ciy wax am ñoo xam ne expression orale la leen yàlla may nga xam ne seeni xalaat liñ ciy jàllale ci wax fekku ci wàllu bind am ñoo am na ñoo xam ne fu ñu waxee nga naw leen waaye buñ bindee rek nga commencé laam-laamee ne waaw ndax ki doon wax wax ju jaar yoon jii ndax moo bind lii am ñoo xam ne fuñ bindee rek nga naw leen waaye suñ waxee nga ne ah waaw xanaa du ki ma liiral article sàngam wala liivre sàngam mooy wax lii fekk am na nag ñoo xam ne yàlla da leen a may moom ci ñaar yépp lañ mane waaye fu mu la dikkale rek moom inspiration boo manee wàllug bind gaawal bind denc boo mënee wàllug wax gaawal wax denc rahmatullahi alayhi sëriñ Sam Mbaye bu ngeen di seetlu ay conférence am da daan insister lu bëri ci mbaa yaa yéen a ngi koy enregistré waaw sëriñ sambay bu daan def ay conférence day insister public bi mbaa yéen a ngi koy enregistré waaw defe naa ne jamono ya muy dund xamoon nañ valeur am waaye tey la ñu gën a xam valeur bi ndax tey lañ ko gën a déglu tey la ñu gën a gindeekoo ci ay waxam tey la ñuy gën a jariñoo ci ay enregistrement yi nga xam ne macha allah bàyyi na ko fii muy lu am solo euh, ñuy dem ba mu yàgg nag am ñoo xam ne dañu manifester volonté wu collaborer ak ñun ñu sawar ci lool kontaan ci lool boo xoolee euh, bu ñu sañoon mbooleem téere bu ñuy jàng du danañu am ku ko jàngale ñuy jàllale ko ci chaîne bi waxoon naa leen ne chaîne bi kay li ma ci yéene ci xam-xam man tuuti naa ci xam-xam bi ma leen ci bëgg indil ah boo ko xaajoon junni xaaj benn xaaj ba sax awma ko wante rek bëggoon naa bépp boroom xam-xam boo xam ne waxtaan naa ak yow ba nga nangul ma ko jox ma ci ndigal su ma mënee di am say enregistrement ma di ko dugal ci chaîne bi waaw wante nag comme ni leen ko waxee woon euh, point bii ma toll ñiy liggéey ci wàllu chaîne ñoo may gën a mën a dégg nag fii may waxee nii du ñëpp may dégg de liggéey ci wàllu chaîne xam luy chaîne dëgg-dëgg ñoom laay waxal ñoo mën a dégg fi may waxee chaîne dafa xaw a compliqué ndax dafa bëri ñuy wax ci wàllu chaîne YouTube te xamuñu ci lu bëri YouTube ak nan lay doxeek aspect technique yaag règlement yi ko tënk ak yooyu yëpp xamuñ ci ta duñ noppi nag xam nga loolu moo tax mu doy waar duñ ci xammee danañ ci jéem a wax léeg nga dégg koo xam ne danaa ni YouTube day fay boo amee lii lay faye boo amee laa fekk sax ñoom la ñuy wax maitriser wuñ ci dara waaw waaw léeg-léeg nga gis koo xam ne day jéem a détaillé nan la YouTube di fayee ci yan critère ak yan norme fekk moom critère de monétisation yaag yooya norme ya ngay respecté xamu ci dara mais daal faw muy wax ña koy déglu itam am nay naïveté bu toll ne doyloo ko mel ne lu gëm la muy wax loola nag tax na ba am collaborateur boo xam ne da ngeen di liggéey continuellement wala ngeen di liggéey ci temps bu yàgg yombul ndax tey koo ci collaboreel rek koo ci waxal ba ngeen d'accord ba mu lay jox ay njàngaleem ngay dugal dangay toog ñaari fan ñett doo ko déggati am ci ñoo xam ne dañuy waxtaan ak seen xarit wala seen mbokk mooy leen eh diw gis naa sa vidéo ci YouTube bi de nga ne ko ah waaw am chaîne bu may collaboreel mooy la eh kaay bul dof ah chaîne du noonu de mbaa sa waay mi ngi lay jox dara bul nangumu mu lay exploiter de bul nangu muy liggéey ci sa kaw de ndax moom da ciy gañe ba noppi nag faaw mu lay jox dara loolu day am ci lu bëree bëri loola tax léeg-léeg nga gis sax koo xam ne dala koy wax sans détour dala koy wax ouvertement ne la waaw sawaay mbaa affaire bi nag moom dina am luñ ciy gañe ñun waaw léegi commencé da ngay expliquer loo gën a expliquer yaakaar na yaa ngi sital sa bopp rek fekk yaa ngi gën a dugal sa bopp moom moom da ngay am dëgg waaye doo ko mën a yey xam nga léeg-léeg ngay weranteeg nit nii da ngay am dëgg mais nag du tax nga mën koo yay yaay am dëgg de waaye sag dëgg du leer doo ko yay loo gën a wax nag pour yaay ko wala pour seetal sa bopp dangay ngay sax gën a dugal sa bopp nag far loolay tax ñu ci bari sax ci collaborateurs yi dangay ngay mujj doo ci sonnati moom daal ku la jox nga dugal bu ne tekk nga ne tekk doo ko woo sax naan ko yow gën naa laa dégg ak ah lu tax di fa doo waxtaan yi su boobaa itam da ngay gën a dugal sa bopp rek waaw bu ko defee kon loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk wante dinaa di kontaan lool su may collaborer ak kenn ki chaîne ba mu créer chaîne boppam dinaa kontaan ndax ñaar benn dinaa ne alhamdulillah ndax kon yaatal xeltu yin dem na ba inspiré ñaneen ñu bi seen chaîne mission baa ngi gën a yaatu waaye dinaa kontaan nag ci mu ubbi chaîne dund li ma dund nag ba xam bu baax ba muy jógee sama chaîne ñaata abone la laa amoon bu ca tollee mu xool ba xam ndax mi ngi fayeeku dara wala déet waaw bu ko dina xam ba nag ah daa am nu ma doon def wala déet waaw kay waaw kay bu ko kon yooyu am na solo wante ñu ngi sant bu baax ndax yaatal xeltu yin inspiré na ñu bëree bëri ba tey jii ñi ngi yor seen seenu bopp di ko doxal loola lu am solo la ndax gisoo rajo bu mel ne Sud FM ñaata nit ñoo ci génne ñenn ñi sax ñi ngi ci ay télé ñenn ñi ci yeneen rajo ñenn ñi nekk ay conseiller en communication ci ministère yeeg ci yeneen institution yu mag a mag sax léeg-léeg sax ñu nekk ci ay institution internationale yu am solo ngoog ba ci wal Walfadjri bi ñaataa ci génne am ci ñoo xam ne tey ubbi nañ seen télé bopp ñooña Walfadjri du leen jàppe mukk ay concurrent déedéet mais ay collaborateur la doon te dañuy gën a wane ndamu loolu Walfadjri ndax loo yëngu rek inspiré nit ba ñu mën a ubbi laneen waaye maa ngi leen di wax lenn de man day xam naa mën nañoo dem ba ay jamono sax ay chaîne YouTube ak yii sax duma ko talaate duma ama ti jotam ma nekk ci yeneeni mbir waaye buñ ca nekkatul itam teewul dama naan chaîne bi liñ ci dugal ci ay waxtaan ñaan nañ yàlla mu gën a continuer de mais même su continuer wutoon bu ci yemoon sax baax na waaw ndax domaine bu ne traité nañ ko sujet bu ne mi ngi ci chaîne bi te dañ koy traité nag ak beneen facette bu bokkut ak bu ko ñu bëri traité moo tax dama naan liñ ci jot dugal ci ay waxtaan sax bu ci dara dollee ko wutoon sax baax na donte nag ñaan nañ yàlla mu kàttanal ñu ba yeneen di ci dollee waaye dama naan suñu mission bu yamoon fii tey maa ngi leen di ñaan yàlla maa ngi leen di ñaan te yàlla tax leen yéen ñi nga xam ne yéenay suivre chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yéen ku ci am moyen créer sa chaîne bopp créer rek sa chaîne bopp nga jéem a doxal dama leen koy ñaan rek su boobaa laaj nay moyen nag ndax dugal vidéo rek la muy jël ci ay connexion xam nga ay moyen la te ñi may collaborer amul kenn ku ma ciy laaj dërëm ne la participer nangam ci connexion nga xam ne bañ ko taxawalee ba léegi suñuy dërëm rek moo ciy dem daanaka amul lenn loo xam ne mi ngi ñu koy dikkee ñu ngi ko ciy gañe waaye ku ci ami moyen rek maa ngi la koy ñaan même soo monétisé wul même soo ci gañewul dara def ko te yàlla tax nga defal sa chaîne boo mënee jàngale laxdari yu jàngaleel boo mënee jàngale risaala boo mënee jàngale naxwu boo mënee jàngale arud boo mënee jàngale bayaan boo mënee jàngale mantiq boo mënee jàngale médecine boo mënee jàngale mathématique boo mënee jàngale astronomie géographie philosophie matière boo mën a jàngale wala nga wut sax ay collaborateurs yu ko mën a jàngale ñu koy jàngale ngay dugal defal maa ngi leen di ñaan loolu bu baax a baax waaw ndax mission la boo xam ne dama naan même man su ma ko munta eggale fa mu war a egg rek naa ko junj rek ñu bëri di ko bàyyi xel te itam kenn ku mënati domaine moo xam élève nga moo xam étudiant nga moo xam professeur nga moo xam sëriñ daara nga bul bañ di ñëw ci médium yu mel nii ak média yi ak plateforme yi ak média sociaux yi wala réseaux sociaux yi ak nu ñu ko mën a tuddee nga di fi yaatal sam njàngale waaw nekkul ak sob nekkul wanewu nekkul tiitaru nekkul dara téeréet ndax li tax mu am solo mooy danga nga jàngal ñoo xam ne mosoo leen a gis da jàngal ñoo xam ne xamoo leen da nga jàngal ñoo xam ne doo leen laaj àllarba waaye su boobaa nag yàlla dencal la ko ñu fay la ko ci àllarba yi yàlla ja ba yowmal xiyaam ja defe naa dara gënu koo neex dara gënu koo neex kon nag mbokk yi looloo gënoon a tax ma leen bu leen di ragal wax maanaam daal li jara moytu mooy booy wax. bul wax loo maîtriser wul na nga ko natt ba mu leer la ne maîtriser nga ko beneen bi itam mooy na nga am sens de mesure na nga yem ci rek waxluy jariñ waaw ñetteel ba itam mooy boo yëgoo boo yëgee ne sag may du wax nga bañ a wax ndax am na ñoo xam ne yàlla mi ngi leen man loo ci wàllu expression écrite buñ bindee ñëpp ne est-ce que waaye mayu leen ci expression orale bu ñu waxee rek da nga naan xanaa du ki bindoon lee moo wax lii waaw am ñoo xam ne bu waxee nga ne est-ce que waaye suñ bindee rek nga ne ah kii moom mbindam bi moom doy na waar di ndax lan moom wax la ko yàlla man loo manewul wàllu bind am na nag ñu yàlla maneloo ci ñaari côté yépp waaw su ko defee kon ah loolu la woon euh, mission la mission la mission la am na yoo xam ne boo koy def sax doo ko tey waaye li ma leen di wax rek bisa ngi ñëw daal ñun mën naa am duñu amati jotu seen YouTube mën naa am duñu amati jotu sax ay média wala réseaux sociaux waaye su boobaa rek combat bi ku ko mën a continuer nga continuer baax na wàññiwul dara waaw am na ci sama benn xarit moom dafa may sañ di wax lu ne benn jour mi may tooñ ne ma hmm, boobu maa ngi def benn reportage ci albumu Youssou Ndour bi mu ne ma yaa ngi def détournement d'objectif de ma ne ko ci lan mu ne ma ah, au début waxoo ñu woon lii de ma ne ko ah, wax nga dëgg de ma ne ko waaye nag yëf yi collaborateur moo ci yombul waaw ma ne leen li ma leen digoon ña ma yaakaaroon ne ñoo ciy collaborer ak man ñoom itam la ma séentu woon wax dëgg yàlla gisuma ko looloo tax itam te chaîne nag bokk na ci li koy valoriser abonné yi di gën a bëri ma moo tax nag ma gën a yaatal samay branche nag waaw ma ne ko tey itam euh, su may def reportage ci Youssou Ndour wala beneen artiste bu mu mën a doon dafay dugg ci cadre rek yaatal wàllu culture générale waaw yaatal suñu contenu ci ay facettes yu bëri te culture yi itam ci euh, facettes yu baax yi la bokk waaw pour kuy dugg ci chaîne bi nga am culture générale ma ne ko parce que nag li ma wax ci albumu Youssou Ndour làmbatuuma ko de recherche laa def waaw la ma wax ca bañ ko nommé ambassadeur ci forum mondial de l'eau waxuma ko waxu mbedd de mais recherche laa def ba mu waxee ci Wally Seck recherche laa def kon dafay dugg ci cadre athaqafa al amma waaw ci wàllu culture générale loolu mooy li ci nekk ma ne ko yow est-ce que yaa may partagel samay lien wu mu ne ma déedéet ma ne ko jeex na kon maa ciy dem ak samay propre rek astuce waaw moo tax itam wante nag sama copain la nag ndax lu ne la ñuy waxante euh, waaw léeg mu déglu ma ci chaîne bi ba ñu daja rek mu ne ma tu as commis une grande erreur ma ne ko ban laati waaw ne ko ban laati parce que man je suis ouvert o critiques waaw waaw mu dema tu as commis une grande erreur damay kontaan ne ko ban laati mu expliquer expliquer bu ko defee maag moom ñu am tiraillement ma défendre sama position mu défendre position léeg-léeg mu convaincre ma man nangu ne ma daanu ma ne ko ah, tey nag maa juum léeg-léeg ma wax a wax wax ba mu ne ma ah, waaw kay kon yow itam ndeke lii tax nga def lii am na solo lool nag am na solo lool euh, kon nag mi ngi noonu mi ngi sàkku ci ñëpp ñu gën xam mission bi yaatal xeltuwin inspirer na ñu bëri te day continuer di leen inspirer même bu yamoon fii sax neex na suñu liggéey même bu yamoon fii sax neex na waaw ndaxte tabaarakallaahu ñiy xam impact bi ñu ngi koy xam rôle bi ñuy joué ci chaîne bi même bu ñu génnoon àdduna même chaine bi buñ ko supprimer woon vidéo yëpp ñu génn àdduna sax rôle bi muy joué dafay continuer éternellement incha allah rabbi ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.